Petit papa nawe Santri Sandra disait appel. le jouet pas mes yeux, Pourquoi le petit soulier Aïe aïe Noël Petit papa Noël Cey Aïe la Aïe ay ay si tu as pas dans Noël et seen góor ñu ngi ku jëfuur barki sëriñ Bamba ku nekk a ngi taas di fanaanal fu ne nii saa kuñ si duut kuñ si duut fu ne nii nga di nawel ay waay doomu raamu nawel yi ay ay imbécile nawel yi ay doomu xaraamu nawel yi ay yu nawel ay waay doomu nawel ay doomu kottu nawel yi doomu nawel yi nag jamono ji ñoom ñooy mel saala bàyyi doomu nawel ah! ah, ah, na déedéet doomu nawel yoo xamante ne defuñu dara eh, eh, ay ñi ni biiree si Noël yi. ah ñi ni biiree si Noël yi. ah ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy. kii la xam nga ci waxee. xale yu ni biiree si Noël yi. waaw da dañuy kii nu mu tudd. da dañuy vacances. seen seen seen kii yooyu ñëw. vacances seen seen seen seen at seen kii yooyu ñëw nu mu ko def seen bés. seen bés ay waay xale yu góor yi. Uh-huh. ñoom daal Noël nay neex rek. ñoom daal Noël nay neex rek nay saf. ñun daal nañuy dóorante rek Noël embrasse rek ay xale yu jigéen ñi na ngeen dal ay xale yu jigéen ñi dee Mm-hmm. na nga dem si paa yi commencé tëj. Mm-hmm. caabi caabi caabi naar caabi xewi na. ay waay ah. caabi pour mi nga am ba léegi de. yow xale yu jigéen ñi dañoo jël caabi. wax nga dëgg de yow xale yu jigéen ñi ñoo lay am ñoo lay ko ñoo lay ñoo lay engagé. wax nga dëgg de. saala caabi amatul. te man li ma gën a métti si nawet gi. Mm-hmm. xale yu jigéen ñi léegi ñooy imposé. ñu ah allo waaw. papa yow nga préparé Noël yi mën na xoolal dama bëgg mu neex nay neex cay neex bu xoolal eh? bu naree yomb rek xoolal non dama la fay bàyyi dem seeti sa morom bu ko defee waaja naa ko mu yow kay déggoo li la comme engagé wu nga rek ay waay ñii ñooy doome raam ay waay ñii ñooy doomu xat te Sall li mu ci gën a jaaxal mooy tubaab bi dafa am loo xamante ni décembre googu da yaakaar lu muy tekki décembre de sambre sambre ba sambre ba yow yaa dégg ma bëri xam-xam néeg ba sambre ba sa néeg ba des des après bu nu desee waaw sa pétale ba pétale ba après revenir revenir desi nag sa sambre ba si néeg ba doomaraam yi ñuy dóorante rek ah doomaraam yi ñuy dóorante rek xam nga la la laa ko eh, dóori dóori tubay dóori tubay dóori dóor ay waay xale yooyu bëgg a contact wi ma pharmacie kay dañ koy rang moom kay dañ ko la pharmacie jamono yi pergi dia laa <laughs> iya. iya. iya. fa dem eh. man duut ah dama doon wut ndey loolu muy wut da ngay pare saaba saala ma daal laa dem pharmacie bi RSA bi di wuti waaye rang bi comme Wally Seck bu wootee Thiès bu wootee Thiès waaw rang bi ni muy mel ni ah ba course ba malaaj man sa waay dañuy ini garab wala gaa dañuy xool sa tension garabu lii la wuy ma dañuy wala dañuy xool sa tension xool la ba xam sa wér gu yaram wala déet gratuité la. Eh. mënu ma déedéet saa yi ñun la ñuy ràññ. lan ko saa yi gaaw ma man damaa bëgg a ràññi bu dee joxe garab man ma garab te temps yi sama sama wér gu yaram dafa xaw a dafa des. waaw waaw munoon saa yi <laughs> ko xam nga laa ko wax. ma ko yaay doomu naa. aywaay yow nga bàyyi sa yitte yi. waaw bàyyi sa lépp. amoo loo def amoo loo dul def. lu dul def ak <laughs> Eh, eh, eh, waaw léegi dañ koy dañ koy kappoor yi léegi dañ koy kii ñu koy waxatee maye parce léegi euh, kii la dañ koy maye léegi ah ravitaillement la léegi rafit dañ koo boole fi ay waay ay xale yu góor yi ay waay xam leen ni jigéen ñi moom waxoon naa ko si sama émission bee uh-huh. jigéen ñi ñooy suñuy ndey waaw Sara uh-huh. boo tiimee xale bu jigéen ay waay xam ni jigéen la la jur uh-huh. amu juróom ñeenti weer benn bis xaw laa rey nga boot tette yedde yaa yiir yiir dugal école waaw mu génn waaw doon président wala avocat wala ministre waaw ñoom ñëw nga war koo tiim bu nu tiimee woon sa ndey noonu est-ce que dina la neex dési saala ndeer waaw ñoom xale yu bëri xalaatuñu loolu eh ñoom dum sóoraale loolu de eh ñoom nay neex rek ñu ñu nokk moom ma nuy nokk rek ay waay ñii ñoo mën a nokki ajaa ab problème dooma raam ci Ablaye Dieng Ablaye Dieng ku ñëpp mel ni moom nokku rek ngay def Ablaye Dieng Ablaye wuyu yi laa dooma raam kooku moom nokku rek lay def Ablaye Dieng kooku nokki rek lay def dooma raam bi xoolal jubal nga ne ma dooma waaw Ablaye Dieng dooma raam la day nokkee Matar dooma raam la day nokkee Xamadu dooma raam la day nokkee Assane Ndiaye imbécile baa ngoog day nokkee Vita Club kooku nag mooy kooku mooy doomeraami doomeraami kooku moom day nokkee mu kati wuy sama ndey kooku moom dafa am feebar moom kooku moom feebar moom Ibba wuy du ma fi fekk kooku tey de taxaw bi du ma fekk borom doomaraam di ruux kooku mooy ruux Ibba ruux Ibba jiy ku ñëw ci place am di di di di di centimètre wala ngay ñëw ah. doomaraam ji bu la nee ma naan nii ay waay Ibba ay doomaraam loxo bi léegi lii la ma la wax nii la toll léegi ruux na ko moom toll